bismillahi rahmaani rahim barkeb borom Touba barkeb maam Thierno Mbacke barkeb maam Thierno Birahim Mbacke borom daar Muxti asalaamaaleykum mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp mbokki murit yëpp fépp fu ñu nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di yëgal ak a fàttali daar Daaru Muxti nga xamante ni ñu ngi koy fas yéene amal altine ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février di dëppook euh, fukki fan ak juróom ci weeru euh, baraxlu ñu koy wax Saxbaan ñu koy defal fee rek ci Daaru Muxti bis boobu nag ku ko dégg ne ci waa axlu xasida ak Baye Fall saw xel war a dem ci Seydina Sowru Sow sunu jëwrin eh, ak maanaam Seydina Ousmane Mbacke nooree ni eh, Seydina Ousmane Diouf Buur Siin waaye sa xel war dem ci Baye Fodé ak mbokki Buur Siin yëpp kon mbokki taalibe yi ñu ngi leen di woote leen xaar ci bërëb boobu nga xamante ni mooy sunu bërëbu bopp si kër Seydina Sowru Sow ñu ànd kook moom ànd kook Seydina Ousmane Mbacke nooree ni maanaam ci màggal gi nga xamante ne mooy màggal Daaru Muxti édition 2024 ñu koy amal ci 26 février incha allahu rabbi yaa ngi suñu borom defal tawfiq ñu yegg ci am ci ndam ak ngërëma Cheikhul Khadim di xaar ñëpp nag ci kër Serigne Sowlu waa Fatul Xafaar wa Axlu Xasida ak Baye Fall yeeg waa kër euh, Maam Thierno yëpp rek ak képp mun doon rek day ñëw ci màggal gi ñu ngi lay xaar ci ñaari kër yooyu kër Soxna Ndikke moom Seydina Ousmane Mbacke Noreyni waaye kër Baye Sowru Sow moom Axlu Xasida moom Fatul Xafaar ci sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax yàlla na ci am ci ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh kon ba boobu mbokki taalibe yi ngeen jëf